Gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Dream Cosmetics. Ladies and gentlemen, comme vous le savez, Marodi sélectionne les meilleures vidéos du Sénégal. Alors, téléchargez vite l'application. Chabi calme-toi Chabi lii da nga ciy il faut qu'on reste soudé. dama bëgg nga baal ma c'est que instant a ñu nekk nii dafa bëri problème tu comprends ce que je veux dire d'habitude dañu wax ne qui aime bien châtie bien man dama bëgg nga comprendre Chabi man il faut qu'on tienne la même version qu'on reste soudé. ñu def benn bloc man ak c'est ça un couple

li priorité est d'abord sa santé moom waa comme mi ngi dans le coma nañu xaar des médecin yi lu ñu wax n'est-ce pas Benen bi moy bu porte plainte né ngeen mo len fekk si. effectivement noonu la demee mën nañ ko régler après. dégg mais pour l'instant li priorité moy santé waa ba paré mo dama ne mom mo bax rek mais li yépp mënoon na ci baña fekk parce que waa mo moo ñëw ba biir kërëm def fa violation de domicile. je sais je sais je sais je sais je sais je sais je sais alors kontaan nga am nga li nga bëggoon gis nga ci lépp li ngay dugg nii problème yi ñu voilà tout ça c'est de ta faute Momo yàgg nañu wax tout le monde parle tout ça c'est de ta faute. Pod lii boo ma ko bëggee sipp xanaa da nga koy sipp suñu baay. ndax bu dul woon moom du ma dugg ci c'est ça ouais arrête de parler de notre père te xamoo ko suñu papa lu nga xamoon si ma xam nga mooy il a toujours tout fait pour nous protéger. mais c'est ce que j'essaie de faire bon sang yow lan la. pour ma nga may si

La solution, est simple. Pote, tu ne me fais pas confiance, mais tu vas devoir me faire confiance sur ce coup. Ta femme et ton fils sont en danger. Ni faut que nous Pour ce soir, Z 37 je leur fais entièrement confiance. Menez nous surveiller le crédit. vers 3h du matin, on sort d'ici pour Dembenen Piol. Ils peuvent revenir à tout moment. Bunjugé demain matin, très tôt, man, je vais trouver un moyen de faire sortir Eva et ton fils du pays. Que ce soit Nudem, Cap Vert ou le Mais l'essentiel, c'est qu'ils seront en sécurité. Momo, ce fait qu'un c'est pour la sécurité de ma femme et de mon fils, je suis d'accord. On peut trouver une solution. Ok, mais je n'ai pas envie de mettre entre les mains de tes gars la vie de mon fils et l'avenir de ma femme. Ça, jamais. Khalatoumou ça. Momo, j'irai voir la police. S'il le faut, Madame Dick, Guis Martin Bass, personnellement, lui, je le connais. Je sais que c'est quelqu'un de très honnête. Momo Manan écoute, c'est irrévocable. Man, je vois la police. But, Martin Bass, tu le connais, tu dis. Mais je suis ton frère de sang. Tu es mon frère de tey la waxul ci est-ce que Momo je suis d'accord je reconnais ta bonne foi mais accepte que tu as fait des erreurs tu ne peux pas venir comme ça me sortir des solutions comme ça ba pare bëgg accepter ko c'est pas possible. écoute Momo papa n'a pas tort Nous disons combien combiner seen ñaari solution yi c'est-à-dire que ñu génne Eva de bi mais malgré ça escorté par la police quand même parce que mon gën l'ingénieur, wóor li faire wax dafa risqué aussi tam Momo De bi am loi li ngeen di wax yéen moo risqué Pod yow xam nga bu li ma tu as envie de te faire escorter par la police bismillah et man je ne marche pas personnellement me suis la wóolu que j'ai appris dans la vie qu'il ne fallait faire confiance qu'à soi-même Oui. Je sa la man ma la police notre police nationale Je ngi dem Martin Bass Quelle putain de femme. Monsieur Diop. Bonjour. Oui, bonjour. Du café Merci, merci. Vous ne semblez pas à l'aise là je ne peux pas être tranquille agent Bass je ne peux pas être tranquille agent Bass man m'a nangu sama jabar Il n'y a même pas trois jours nous bëgg sacrifier sama doom ay bande yoo xamante ne xam fan la ñu jógee il paraît que c'est un membre d'une benn secte boo xamante ne ñoo secte agent Bass man xaw ma sax li xew man je rien compris dans toute cette affaire li am mooy au moment où man maa avec toute ma famille au salon nekk di c'est vrai dama mon accrochage ak Momo parce que c'est lui qui m'a mis au courant de tout ça mais quelques minutes après ma yéeg sama chambre ton mec ben waay joo xamante je l'ai vu comme ça ma bett quoi. il était habillé en tout noir di waaj a sàcc sama doom ci biir bés bi di ko waaj a le dem mais si une minute de retard j'ai na sama doom dem ne sais sax fan la la écoutez pourquoi ce ne serait pas juste une coïncidence à cambrioleur et vous auriez cru peut-être qu'il est en train de voler votre fils comme Momo vient de vous le dire et lui qu'est-ce qui lui prouve que c'est c'est une secte euh, quoi qu'est-ce quel élément de preuve avez-vous il en sait quelque chose il est plus informé que moi il m'avait prévenu Télé, lii dama ci teg sama vous avez reconnu le gars qui a essayé de faire ça Vous avez vu, vous vu son visage Bon, vous me sautez par la par le balcon gis naa ko su ma vu mais lu ma c'est que j'ai l'impression que je ji mais je ne sais plus où. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Si je n'avais pas entendu des histoires similaires, euh, des rumeurs, je ne vous aurais pas cru franchement, j'aurais dit que c'est une fiction sortie tout droit des films. Hein. Mais je vous crois parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Mais je vais vous dire, et c'est pas pour vous effrayer, ces gens sont très très puissants, extrêmement organisés. S'ils vous prennent pour cible, c'est un miracle si vous en échappez. Quoi Non non non, c'est pas pour vous effrayer, je vous le dis. Je serais même tenté de dire ou de penser que je ne peux rien pour vous. Que vous ne pouvez rien pour... Attendez, mais agent si vous dites ça, c'est parce que vous rejoignez mon frère qui lui ne fait pas confiance à la police. Non, non, non, non, non, non, non, non. Votre frère a tort de ne pas faire confiance à la police. On est intègre ici. C'est la justice. Seulement, dans toute organisation, il y a des brebis galeuses. On ne sait pas qui a appliqué. Raison pour laquelle j'ai fermé la porte. Mais alors, bah, j'ai pas envie de perdre mon fils. à la bonne place, à la bonne adresse. À partir de maintenant, on va prendre les choses en main. Vous êtes à la dite là. Mais je peux faire quelque chose pour vous, bien sûr. Je peux vous aider. Voici ce qu'on va faire. On va constituer un dossier autour de tout cela. Je vais en parler à nos supérieurs. Et tout de suite, je peux vous assurer qu'on va vous envoyer deux agents pour assurer votre sécurité et celle de votre famille. D'accord. vous aurez deux agents derrière vous tout le temps. Très rapidement, on va prendre ça en charge. Mais je vous le dis tout de suite, ne soyez pas distrait. Restez à côté de votre famille et ne faites confiance à personne, encore moins à votre petit frère Momo. Vous avez compris Ne vous inquiétez pas pour ça, agent passe. Déjà, à partir de ce soir, j'arrête de dormir. Yeah. comme je vous le dis, je, je, je prends les choses en main. Merci beaucoup. Et bonne journée. Au revoir. Eva xool ma fille, boule jaaxle Qui suñu deret la duñu nangu kenn di ko def quoi que ce soit ou di ko yóbbu où que ce soit. Pod dem na police tout va rentrer dans l'ordre. dafa ni que neex ak souffrance bi ma jógee nii yëpp ëmb doom neuf mois ak li ma ci daj yëpp ma foog ne jeex na ñu may tegaat lii te dama xamul lan moo tax ñu tànn sama doom. pour la xam ñoom ñoo ko xam mais ñun duñ leen defal li ñu bëgg. duñ ko def. Eva um lu mu wax dëgg la gis nga dëkk bi dafa am nit ñu bon nit ñu soxor waaye gis nga xale bi kenn mënulu ko dara te ñoom ñi tamit mënuluñ ko dara. yàlla moom moo leen ëpp doole ko protéger comme sont ko protéger incha t'inquiète même pas pour ça. li ñu bëgg duñ ko am man maa Eva calme-toi. sama bopp. day bi maa ngi sax. mu ngi suuf mooy dëgg de dina yomb trop. Euh, déglu ma fi tànn ma ay waxi ñaw yaa ngi dégg li ma lay wax. yëre yi su paree nga téye fa ba ma am jot ma ñëw ma indi ma jël si ko. ndànk ba muy ji. sama tey war na ma di ma fay ay xaalis dama ko tal instant bii. xam na ci li nga nekk ndànk rek hôpital nga nekk. su fekkee am nga compte orange money nga ma yónnee la ko foofu ah amoo compte kon nga toog nga xaar ba ma am jot ma indil la ko ak numéro boo mën a yor ma envoyé ci sama compte orange money di nga am code booy jot demal ci bépp point boo xamante orange money la nga jot ko fa facilement. Hmm. sans problème. indil indil jox ma téléphone bi. jox ma. am na loo moo expliqué ci compte orange monnaie. su amul compte orange monnaie, mun na ko envoyé par code mu jot ko c'est simple. Chobi Cissé

C'est gën yomb ngay xuloo Sir. réanimation la réanimation. c'est Sir baa muy tane. xanaa liñ la wax mu réanimation nga may laaj ndax tane na bu tane woon dinañ lii nabu man duma xëccoo góor loolu yow yaa ko tal siir kóllëre doo nga tax ma koy seetsi te foog naa su ma si bëggoon jot dëgg doo ko am yaay kii ex siir te dafa tas dafa divorce fi mu nekk nii xam naa bu baax li may def man de xam nga maa tey maa ngi yóbbu. yow foo jëm. mu du jëm sama kër soo ba maa ngi fii ci bi xanaa war naa ne koo sama kër gi nag. waaw doo toog ba si kanam. déedéet damay dem soo ko war a génne tàggatu ko. yalla maa ngi lay ñaan ci sa barke sama doom ji fi mu tëdd yàlla yalla yàlla fëgg boppam yàlla loo ma sa santaane maa ngi ciy góorgóorlu tey dama lay ñaan ndax bu ñaan moy sama raison de vivre sama doom ji yàlla na ko yàlla dellu ci sama lox ci yàlla na nga genn ci jàmm ak salaam dee maay sa yaay yàlla na yalla sutural nga genn ci jàmm ak salaam Momo, déjà, merci pour tout ce que tu fais. Mais je crois que ce présence Nyanini maintenant, c'est inutile. avec Martin Bass, il m'a mis en rapport avec ceux-là. C'est des agents de la police. Nous avons vraiment pour la sécurité de ma maison. si ginnaaw c'est la police Pod mo len woo pour me surveiller leen kër gi dafa am kenn ku dugg ci kër gi bëggon jël bébé Eva hmm? xoolal duggal maa ngi lay wo légui wax la fan lañuy dajé dama bëgg lépp lu xew ci kër gi nga wax mako ko. c'est bon t'inquiète. no got nothing to do with it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. something. fella, some fella. tu me dis que tu as assez rêvé Mais tu sais très bien que l'homme, c'est impossible. Ne me dis plus que c'est impossible. Tu sais très bien que l'homme, mon mec, c'est impossible. waxtaan la ba tàyyi nekk médecin nit kese la. Sire. Sire ne nous lâche pas, s'il te plaît. Sire, me ma pas ce décourage me donne. dund moi bon espoir tu m'as redonné la force j'espère que tu auras cette force aujourd'hui je veux que tu te battes. C'est pas le moment. Tu as la vie devant toi, Sire. Sois fort, s'il te plaît. Sire Sire Kimseye yakmadık. Doktor! xeexal ñàllal rek gis nga bu leen xamoon du doxalee nii mu doxalee. loolu kay leer na. seen mag boobu ngaaka la kooku est-ce que yéen a bokk yéen. mais gis nañ ñu ci coono bu ñu ci am gis nañ ko te 37.

instant bi on est quatre ci combat bi il nous faut une armée ñu fait que fi ñu nekk ñu boom leen. moom côté boobu bu ci am lenn loo Vous ragal bu dee ay pour dee dans le maa déjà am nañ armée c'est bien. li wax c'est beau ñu am armée mais bu leen fàtte combat bi c'est un combat de tacticien. C'est ce que ñu war à bon gars on les connaît très bien on n'a qu'à utiliser les informations qu'ils ont contre eux-mêmes. Doulou, j'ai déjà une idée en tête Un bi de la rassembler l'armée mettre en place notre tactique utiliser ce xel fekk que fi ñu nous.

note. lan. ah facture SDE la ak Senelec de la waroon fay mais son contrat xaalis bi ci nekk mais loolu dara il me fay la ko ma dem fayal la ko. yow nga dem fay ko te monsieur Diop nek fi war a mën recharger son contrat xaalis bi pour ma fay ko non grave. waaw monsieur Diop. Uh-huh. kon yow yaa ngi monsieur Diop. c'est-à-dire. non ah, grave grave. Diop. Euh, facture yi laa bëggoon fay mais sama compte orange money li si nekk bëriwul. oh Mathilda ah. bon say accueil bi kenn nekk ci suuf te man dama war a dem léegi. xam leen lu ñuy def on va faire simple da ngay woo benn agent cash à domicile comme ça moom su ñëwee ma jox xaalis mu recharger sa calpe orange money comme ça nga fay ko directement d' accord. yëg nga retour terre. si si yëg naa ko kontaan naa si trop. non maa la gën a sax mais ce n'est pas tout parce que imagine toi instant yi ak problème yi ñu jógee yëpp tey on vient de tomber sur un marché hyper important dafa am benn pôle urbain bu nekk Diamniadio et devine quoi on vient de nous confier le marché des câblages réseau non mais.

Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yana nangulngamasama ñaan gëm naa ni yow rekk yow yaay buur yàkkamti woon naa torop wax ko sama borom kër ak nattu yu am ci biir kër gi nii c'est pas le bon moment non même pas Ce qu'on les bi sax lañ jël ah yoon dafa rapide. très bien man li ma jaaxal fi 2012 C'était le désert c'était une vide ici. Waouh, man de damaa presque une ville. effectivement c'est en 2014 qu'on a lancé ce projet le de urbain de Diamniadio. oh boo les sax ñu ngi toll 1644 hectares hein, soit 4 fois le plateau de Dakar. sérieusement ah oui.

gis nañu centre international de conférence de Abdou Diouf bi. ok aussi il y a une bi radisson ngi mi ngi nekk noonu. aussi y' a aussi à côté euh, la zone industrielle. donc pourtant aéroport Diass aussi mi ngi juste à côté ah C'est pas loin. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Il y ngi bon ok au fait fii nag site ministériel bi la. d' accord boo quatre bâtiments yi yëpp ay bureau lañ ko nar a def. Euh, ay bureau lañ ko nar def donc juste pour que.

crash am quoi. d'accord mais c'est extraordinaire vous êtes en train de construire ici vraiment un véritable pôle urbain très bien c'est ça donc dina permettre fonctionnaires de war a ici. des ah vraiment sen sen ay parce que déjà les mu fi. waaw indi fi ñu liggéey moom war nañu euh, voilà très bien c'est ambitieux vraiment. bon en fait euh, l'objectif c'est juste de moderniser l'administration, c'est ça. voilà en tout cas dans euh, gis na ne tamit ngi accéléré effectivement bon au fait ça après vous ñu ce projet bi amna un projet à côté c'est pas loin yo xam te yu mel nii la bu ñu paree fii rek après foofu lañ jëm. non boobu tamit fu mu liggéey. <laughs> mais dal ana daal. ok li ma leen mën a wax. Mhm. nga marché câblage réseau bi ñu dénk. Mhm. ñun waa faire notre maximum pour liggéey ci bu baax. parce que ñun tamit dañu bëgg di liggéey souvent ak ak des gens qui sont ambitieux comme yéen. ñun liggéey ak doomu réew mi aussi mu moo gëna gën a mën quoi. je sais waaw <laughs> waaw. non su nekkee ne loolu rek. di nga si déggoo. ah incha allah kontaan. incha allah <laughs> d'accord suñu paree ci biir nag. en tout cas ñun ñu ngi suñu liggéey boobu la si des. d'accord non amul benn problème. c'est ça amul problème franchement nous sommes très contents. ok merci beaucoup ok monsieur Diop merci. au revoir. xaw ma sax ni nga mujjee feene non ça c'est super bien passé je te ah. jure j'ai rencontré monsieur Sy mais ñu mm. waxtaan ci projet bi non mais en plus fële jam c'est magnifique non fa ñu m'expliquer expliqué la waaw kon gaawee on a le euh, projet on a le projet ah c'est une bonne nouvelle ça allo sama gars yi waaw pot gën naak jabar ji ah waaw ñu ngi amee doom ji waaw am na benn gaan bu ñu nekkoon nag euh, jàpp naa ne chauffeur bi la xaale garde leen distance bi rek garde leen distance bi ma teg leen ci code ah Okay Amin dang rek dama faat. Amin dang. Amin dang rek. Boy, vous n'avez rien. Boy, ils m'ont pris. Eva S'il te plaît, Momo, promets-moi que tu vas le récupérer. Je vais le récupérer.